liiru noo def maa yaa ngi ci jàmm. waaye sant yàlla bu baax. naka jàmm. sant yàlla baax a baax. ñu jaale Père Balla mi nga xamante ni euh, symbole la woon ci géejuwaay monument la woon. sunu papa sunu xar ñoo la koy jaale di ko jaale ak lu lamb bépp di ko jaale ñëpp di ko jaale Balla Gaye 2 grand champion. bépp kuy mbët rek géejuwaay ñoo la koy jaale di ko jaale ak lu lamb bépp waaw ñu ñàkk nañ waaye Balla Gaye ñu gën ñàkk ndax xamul ku ñu Balla Gaye xamul kuréel Baye Balla la waaw depuis muy xale bu ndaw la ko yor ba mu toll ni mu toll waaye ñoo ngi koy jàll ñëpp di ko jàll Youssou Ndour di ko jàll Moussa Ndour ñëpp ñoo la koy jàll di ko jàll yow tamit ko jàll xam nga ma fekk la ci ngénte ki nga xamante ne mooy sëñ Basirou Ka seen diggante yéen ñaar lan la waaw Basirou Ka dafa nekk nit ku baax rek bëgg sport da ngay xool jotaay bi ne mu yànjee gis nga fi ku ne kilifa diina yaa ngi fi kilifa aada yaa ngi fi mbëru làmb yaa ngi fi ci moom la rek moom moo baax rek waaw moom moo baax rek ci moom la moo ko liggéey ku nekk la nga liggéey rek ngay fay waaw ah, ci moom la rek voilà ndax xam naa ne ñun ñàkk ñu la ñàkk fayda ba lu ñu yëgalul ñu fay ñëw lu ñu yëgal ñu fay ñëw non non soo gisee ñoom Salif fi bëri yaa ngi fi bëri nañ fi ci moom la moom moo baax rek te am na ñoo xam ne ñoo ngi ñëw waaw di ko ñaanal rek moom moo baax rek doom ji mu tuddee soxna jaartu laay maam Mariam Bousso yàlla la dund bañ koy muur muy sëy voilà parce que baax la dafa baax bu pare bëgg sport teg si nekk xaritu mbër yi waaw yàlla ko yàlla defal jàmm dangay xool kër fi diine ñëpp waaw ah, ñëpp fi baax rek am solo waaw ah, jërë ngeen jëf ñoo lay bëggee di sant di la gërëm yow tamit. est-ce que xam nga ne Bombardier xam na ni li nga koy waxal yëpp ci làmb ji. Bombardier li ngay wax ci làmbam yëpp mu ngi koy dégg mais jàpp na ni li mu toll nii lim la war a def yëpp da koy jaarale ci Balla Gaye 2 doog laa jàpp. man nëbbu ma ko ragalu ko li may wax ñeme naa ko ñeme naa fu ma jëm. Bombardier li ma koy wax ragalu ma ko ñëwee naa ko. lan moo tax amoo moom contrat te foo jugee attaqué. waaw ah bon Bombardier man laa amal contrat kay sama rakk lay jàkkaarlool man laa amal man Balla Gaye nee naa la kuy bëreeg Balla Gaye bëreeg Balla Gaye man ngay bëreel. Balla Gaye moom man lay bëreel ndax Balla Gaye suma la sama rakk la. lenn moom xam naa ko yaa ngi yaa ngi bëgg sikk nag. yaa ngi bëgg a sikk. ku ne nga bëgg a laaleeg moom. ah mais joteel da nga ko dóor kaay. wulli kaay toogal ni toogal ku am ku doo lakk nee na dama bëgg a dóor nee naa ko ku nekk nga joteeg moom jote nga ak buur géwal laal nga bombardier laal nga ku liiru jaan la la laal xam nga moom nag sama waay la dama am mu yéene ma ndam Tapha Gueye de léegi naa ko li jaar na mën <laughs> Tapha Gueye 2 non Sambala Tapha Gueye 2 moog moo mën. Lirou moo mën Tapha Gueye ah, koo faral. ah non yow laa faral de man wax naa ko foo néew te xam naa ne yaa ko ma Adama Diop dafa dof wérul. yàlla na ko yàlla may ndam ci Tapha Gueye. yàlla na boo boo bëgg mu daan Adama Diouf. ma daan Tapha Gueye dëgg ñun ñaar ñu bëriwaat ndax askan wi suñu combat lañ soxla. non Tapha Gueye moom kay mën barke sëñ Saal ku la ko mën. am na 47 ans 47. mooy Tapha mag la de. wuu gars yi xamul. Tapha Gueye day kii rek day nante naan lu mu nekk nekk mag yaa ko mag fuuf de. oh c'est pas vrai barke Cheikh Ahmadou Bamba Tapha Gueye moom mag yor nga xam nga Tapha mën a daan xale yi mais kii da koo xam kii dafa ànd ak ñoom la de Guiers Alioune Seye maanaam dafa mun a bëre bëre màgg Tapha Gueye yi moo daan dalay nax xale yi la moo daan xale yi ma mën a daan mais mun daan ko. man bëre mag laay bëre ak moom comme moom ni mu ñëwee xamul curux curux yooyu muy def su ma nekku niij ba ja amul doole dafa périmé amul doole dafa périmé ay rappel moo la dese su ma ko jàppee xam dëgg la kee nag Adama Diouf nag dof la dafa wér suy fecc naa ni su ko wëlee jàppee mu xam lépp dëgg Modou Ka gaañ nag Modou Ka gaañ. la door mi laa bëgg rawaas après. Eh, arrête rawaas. Ah, su eh, ma daanee liiru jël Sa Thiès rawaas. kii kii ñaata yoon lañ ko dóor. ah man maa ubbi jox liiru liiru sokki ko yaa may dégg kii nañu moytu saraxam la ñu yor nag wax naa la loolu nag ma naqari loolu moom na naqari moo tax ba ma ko jël damay bëgg liiru dama bëgg liiru mu ànd ak ñu xeex ma bu ba liiru jaan daanu ma gambi mais door naa ko door yi ma ko door gambi yu ko laay door yow waaw li nga Batika nag yow dégg naa ko keroog dëj boobu seetaan naa vidéo na Batika wérul damaa juum dangaa juum non Batika wérul non bilaay Batika champion la di tagg Batika Batika Batika xanaa xam nga ko doon fay 20 du wadul bëre day simb nii di soob rek bilaay bërewul Sëriñ Bamba du bëre. bari nga wérul dafa dof. yaa ko mën fuuf. diisu naa bëriwul ah. tàngoor bi muy sol bàyyi laat. mën ta sol. bari nga wérul. billahi bari la sol kanam. bàyyi laat tàngoor mu sol bàyyi laat tukat. bàyyi laat la bokkul de ay bokkul ba kii la sol. xam perka moom lan la sol popeline. popeline ba ba pare. ba teglante ñaari yéen si biir ah, sol ko muy ñett. ba ba dafa dof wér wérul. non non. ki la ko mën. ah ki la yaa ko mën.